jàngoon nañ jamu mbooloo mu góor tey na ñu jàng jamu mbooloo mu jigéen mu ne ba man haulail fatayaatu ñan ñooy jànq yi yaa Mariam Mariam nag hunna ñoom zumalaati samay morom lañ axawaatun nag ay mbokk lañ hunna ñoom naam hunna ñoom axawaatun ay mbokk lañ kon ah, fityatun mooy mbool jamu si góor fata fatayaatun mooy jamu jigéen mooy ay jàng mu ne man abu kat mooy seen baay abuhunna seen baay a cheikh bilal mooy cheikh bilal ummuhunna seen yaay ustaazati mooy sama ustaaz mooy kon nekku ne ustaaz nga danga ustaaz góor kese lañ ko mën a wax déedéet fekkee jigéen ustaazati ngay wax ayna baytuhunna ana seen kër baytuhunna seen kër xaribun aji jegele min al madrasati si école bi tamarin yaay jéemantuna aw istansel al mubtada mubtada fi jumlati ate si jumla si jumla yi dikki ila jamin jamin ko si jamo kama wo comme moom nekk mawdu fi misaal si misaal yi ni ay mubtada la yaaga war a def jamo comme nun nga misaale ne misaal hazihi ki bintun xale bu jigéen la haulaay gaay banaatun ay xale yu jigéen lañ kon noonu ngay defee kon noonu ngay defee yii nii tamit haadihi kii taalibun taalibe waxal ñi taalibaatun ay taalibe jigéen la haadihi kii mudarrisatun jàngalekat bu jigéen la waxal ñi ay mudarrisatun ay jàngalekat jigéen la haadihi kii tabibatun docteur bu jigéen la waxal ñi tabibaatun ay docteur la haadihi kii muslimatun jullit la waxal ñi muslimaatun ay jullit la haadihi kii zawjatun borom jëkkër la waxal ni ah, ah, zawjaatun ay borom jëkkër la haadihi kii uxtun waxal ñi axawaatun ay mbokkaleen haadihi kii fataatun waxamaan jaqala waxal ñi fatayaatun ay jànqaleen haadihi kii jadidatun aji bees la waxal ñi jududun ñu bees leen haadihi kabiratun aji mag la waxal ñi kibaaru ñu mag leen haadihi saxiratun aji ndaw la waxal ñi sixaaru ñu ndaw leen haadihi kii ay aji la waxal ñi tiwaalu ñu njool kon yooyu yaa def mu ne xala jàngal waxtu ta jàngoro nga bind ko wawulaay gars yi ixwati samay mbokk lañ wawulaay gars yi axwaati samay mbokki jigéen lañ man hawulaay fatayaatu ñen ñooy jànqi hawulaay gars yi banaatu mudarras mudarrisati mudarrisati doomi jàngalekat bu jigéen bi hawulaay fatayaatu jànqi zumalaati samay morom lañ mu ne abu na seen baay tabibun docteur la wa ummu na seen yaay mudarrisatun jàngalekat la aw ay na taalibaatu ana taalibi yi jiitu yu bees zahab na dem na il maktab jëm si bureau bi mu ne ay na banaatu kana sa doomi jigéen yaa am ti yow sama baay te sun na ñoom fil matbax ñun si waañu aw laal ma maridaat ndax sans femme yi muslimaat na ay julli leen naam waaw haula irtabiba da docteur jigéen yi azwaajo ne seen jëkkër mu daru sunu jàngalekat leen man hadil a kan mooy jigéen ki hiya moom zawjatu tabibi jabaru docteur bi la aljadidu bi beet moom abnaatuka say doomi jigéen fil madrasati sana yi ngi ci école sanne ya ah, ya usama usama mu mu ne ah, baadu na ñeen ñi fi madrasati sanawi ñu ci école sanawi wa baadu ñeen ñi fi madrasati mutawassit ñu ci école diggu doomi mu ne alak ndax ñeen la banaatum doomu jigéen yaa lay laa yow lay mu ne ko naam lii ñeen ma doomu jigéen kibaarun bu mag woon na ay taalibe leen mu ne bil jaamaat si anniversaire mu ne mënoo wulaay ni saaw ñen ñooy jigéen ña ci ñu jool ñi mu ne ko woon na ñoom tabibaatun ay docteur leen min amérique ay jógee ko amérique min atabi bada i xara jànga al misal misali mu ne suma be topp nga changé al jumal ate jumal dik mislo bu ñu jox ñu ngay defee yeneen des misal zeynab zeynab xarajat génn min fas jóge si classe bi zeynab zeynab wa amina ak amina wa mariam ak mariam xaraj na génn min fas jóge si bi ñu ngay defee yëpp zahabat dem na ilal fas jëm si classe bi jàngalekat yi dem nañ dem classe bi yu jigéen ñi ak taalibe na taalibe bi aljadid bu bees bi jëla sa toog na fil fas si biir classe bi waxal taalibe yi jigéen ñi toog nañ ci biir classe bi bintu uh, Muhammad doomu Muhammad zahaba dem na il madrasa dem ci école waxal uh, doomi Muhammad yu jigéen ñi uh, dem nañ école mun ashir juñal mu ne ila asmaa taale ila isma ila asmaa taale si ah, tur yi bi ismi ishaara si ismu bi juñ li xarab ñu mooy haza kii ku góor hazi kii ku jóg hawlaay li tur ni yaa fi dugal haza kenn ku góor la hazi bu fekkee kenn ku la hawlaay bu fekkee kenn ku góor la wala kenn ku jigéen axi sama mbokk xool mbokk bu sama mbokk jigéen rijaalun ay góor mudarrisun ay jàngalekat yu góor mutaalibatun ay taalibe jigéen ummi sama yaay abi sama papa taalibatun taalibe bu jigéen tabibatun tabibatun ay docteur yu jigéen tujaarun ay commerçant xool bu si nekk bu mu war a def daa tegal fi amaakin xaalati si barab yu weti min jumla aate si jumla yu dikk damirun dami munaasiban bu dëppoog huwa moom góor gu fi nekk moom jigéen gu fi nekk moom mboolom góor mu fi nekk hun mboolom jigéen junne gën nee na yii nii am na yoo xamante ni am am na yoo xamante ni huwa la mi nga mi yoo xam ne hunna am na yoo xam ne hum am na yoo xam ne hunna am na yoo xam ne hiya yaa xool bu ci nekk rek bu méngóor nga boole ak moom man haza rajul kon mooy góor gi bu fekkee huwa la nga teg bu fekkee hiya la nga teg bu fekkee hum la nga teg bu fekkee hunna nga teg mu ne mudar mudarrisuna suñu jàngalkat ayna taalibaatu ana taalibe yi jigéen ñi fil fas si biir classe bi waxoon wana haulaay fitatu ñen ñooy waxambaane yi abnaawul mudarrisi doomu jàngalekat bi ana taalibatu ana taalibe jigéen bi aljadal bu bees bi fi maktabi mu si biir bi mu ne man haulaay naas ñen ñooy nit ñi eh, jaajën ay xeskelam indi jigéen indi ana tabibaatu ana docteur jigéen fi mustasfal wilaadati ci biir hôpital jiréer bi mu ne man haasal wala kan mooy xale bi àll jigéen xon xara jigéen jigéen si kër ibnu aqi sama doomam bokkalal min ayna haula gaay fa lañ jóge min min ayna haula ñi fa lañ jóge min min ayna haula duyuf gani fa lañ min riyad ñu jóge ci riyad min ayna haula sans soin fa lañ min philippine ñu man hazil fatatu kan mooy jànq bi bintu mudarris doomu jàngalekat bi la ati andil jamu asmail ati jamu turi yi ni ay ay ay yaa ngay def jamu uxtun mbokk bu jigéen bintun doom bu jigéen muslimatun jullit bu jigéen tabibatun docteur bu jigéen tabibun docteur bu góor zawjun jëkkër zawjatun jabar fataatun jànq kabiratun ku mag tawiratun ku njool jadidatun ku bees aqul mbokk kabirun ku mag jadidun ku bees daf ko jàmm mu ne asmaa'u turi juñu lil qaribi ñeen lu jege nee turi nga xamante ne ñooy juñu hada kii taalibun taalibe la fekke góor fekke jigéen haaji yi ngay wax haaji yi kii taalibatun bu jigéen la mais fekke góor la fekke góor mbooloo bi góor jigéen yëpp ñoo ko bokk mooy juñu la ji hawlaay gaa yi tullaabun ay taalibe lañ hawlaay gaa yi taalibaatun ay taalibe yu jigéen mu ne alkalimaatu jadidatu baati beesi azdawju mooy jëkkër jamu bi ay jëkkër almaratu mooy jigéen jamo bi nisaawoon ay jigéen wala wala niswatun timit nisaawoon jamo mooy niswatun almaratu jigéen bi al imraatun lañu wax soo almaratu mooy jigéen waaye bu fekkee boole si al gi ne imraatun ngay wax ku jege aji jege mu ne jim haulaay gaay ixwati sama mbokk lañ wa ulaayka gaay yële asdiqaay sama xarit la bu fekkee ñu sori la ñu sori mooy juñu ñu nga xam ne dafa sori waa góor ak jigéen te ñi jamu góor jigéen ñëpp ulaaka ngay wax bu fekkee ñi nga xamante ni dañoo sori waaye kenn la euh, mufrad la bu waa góor ah, zaalika jigéen tilka mu ne haulaay ixwati gaa yi samay mbokk lañ ulaaka gaa yële asdiqaa yi samay xarit lañ man ulaayka ñun ñooy gaa yële man ulaayka rijaal ñun ñooy góor ñi la atiwaalu yu njool ñi ñoom ati baa ay docteur lañ min Amérique ay jóge Amérique man ulaayka nisaaw ñen ñooy jigéen ñële hun nañu ummaatu taalibaat ay taalibe jigéen lañ aba u tullaabi hun um, nañu ummaatu taalibaat ñooy yaayu taalibe jigéen aba u tullaabi baay taalibe hindal mudir ñu ci directeur bi mu ne ulaayka nisaa jigéen ñi ko say tante leen yaa marim laa hun samay bàjjen le ha ulaay atibaaw docteur yële wa ulaa'ika al-muhdisun góor ñi fuqaraa ñàkk na ulaa'ika ñele nag ñu risq ulaa'ika tulaabu taalibe yele da'afu ñu lot lañ man ulaa'ika rijaal ñoom ñooy góor ñele ñu wuzraa ay ministère tamarin yaay jéemantu hawil changer al mubtada mubtada fi kulli si képp min jumla ade si jumla yi dikk jam ma taxyir ma ànd soppi jam dana yi ay mutla yaa ngay def jamu la misaal zalika rajulu góor gële mudarrisun jàngalekat ulaayka rijaalu góor ñële mudarrisun jàngalekat leen nu ngay defee nii man zalikal fataal kan mooy waxambaane si waxal ah, kan mooy ah, waxambaane ñen ñooy waxambaane ñële nu nga waxee yëpp min ayna zalikal mudarrisu bële fa la jógee nu nga defee tilka fataat waxambaane bintu tabiib docteur bi la hada taalib taalibe bi min Angleterre mu jóge Angleterre wala min France mu jóge ko France def ko jam zalika muhandis ndax ingénieur bi la muslimun jullit la def ko jam hazihi mar'atu jigéen bi mumarridatun sans femme la wa tilka wale tabibatun docteur bu jóge def ko jam man hazal waladu kan mooy xale bi atawile bu njool bi def ko jam tilka fataatu jànq bale mun astaxiru ba ndaw bi uxtu hamid mbokk hamid la def ko jam tilkal mar'atu jigéen ba ummu taalibi taalibati yaay taaliba bi zalika rajulu góor gële aalimin borom xam la kabirun bu rëy mu ne minal mamlakati ah, minal mamlakati larabiyati muy jóge ko mamlakati arabi asaudi kon yow yaa ngay def jam mu ne ashir juñal asmai ats si bismi ishaara tulbi juñu ilil bayn ñeen lu sori mooy zalika tilka ulaayka zalika mooy kenn ku tilka mooy kenn jigéen ulaayka mooy mbooloo mu wala mbooloo jigéen yooyu yaa ngi bu nekk am na boo xool war naa dugg fii su nekk rek nga dugg ko fu nekk taalibun taalibe xool ba xam lu si war a dugg tujaarun commerçant wala si war a dugg mudarrisatun jàngalekat yi jigéen tabibatun docteur jëdidun mu bees ummahatun ay umaru talibaatu yaay taalibe yi aba utullaabu baay taalibe yi fallaawal baykat ummu muhammad yaay muhammad sadiqi sama xarit axawaati samay mbokki ixwati samay axawaati mooy samay mbokki jigéen ixwati mooy samay mbokki góor haati andil jamu kalimaatul aati jamu baati di dikk yi ñu andi seeni jamu ummun yaay yi yëpp daan ko jàng ngoo si abun baay imraatun jigéen ammatun bàjjan daif mooy ko lottu wazirun ministre ismun tur yooyu indil jamono bi iqra jàngal waktub tanga bind asdiqaun ay xarit agniyaun ñu riis aqwiyaun ñu dëgër atibaun ay docteur fuqaraun ñu ñàkk dumalaun ay àndandoor wudaraun mooy ay ministère xulamaa ay borom ay jamo mun asmaul isaara tur yi ji ñu lil bàyyi ñu sore al mufrad mooy kenn jamu al jamu mooy mbooloo al mufrad bu fekkee ah, muzakkar la juñ li mooy li juñu ah, ah, sori bu zaalika la ñoo zaalika kële taalib bu fekkee muannas bi ñu ne tilka kële bu jigéen la bu fekkee ji jamoo bi la nag mooy li juñu sori bu waa moom ñëpp ñu ñu ñaan ñëpp ñoo ko taalibaatun ay taalibe jigéen lañ muhammadun muhammad zahaba dem na muhammadun muhammad wa hamid ak ali wa ali ak ali zahabu dem na mariam zahabat dem na mariam wa amina wa fatimatu ak fatima zahab wax comme bu fekkee mufrad la ngay wax bu fekkee comme ñoo xam ne ay jamono mbooloo lañ comme wala ñett nit jëm ko zahabu ngay wax bu fekkee góor lañ bu fekkee na mu ne alkalimaatul jadida yi ñooy baati bees yi daifun mooy ku lottu góor lottu daifatun mooy jigéen bu fekkee ku jigéen bu lottu la daifatun lañuy wax mooy jigéen bu lottu jamoo bi ñoom ñaar ñëpp mooy diafun ñoo bokk diafun mooy ñu lottu ummun mooy firi yaay jamoo bi mooy ummahatun ay yaay abun mooy firi papa jamoo bi mooy abaun ay papa nga mooy baay xawiyun mooy firi ku dëgër jamono bi mooy aqwiyaun ñu dëgër alimun mooy firi ba mu xam-xam jamono bi mooy ay borom xam-xam kon loolu moo leen darsu tay bi si luxa lu si des bëreetul lu si jub si yàlla lu si dëgg sin gaat xam-xam la sin illa al islam mastataan tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu